رضيت عن المولى تعالى الذي ربى ñu ngi fii ci bayti ci kër sëñ Ahmadou Mokhtar di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootu Cheikh Ahmadou xam ngeen ne Serigne Cheikh Mbacke Madina ni mu baaxoo def ci weeru kor wu nekk togg ay ndogu jëbal ko kii di sëñ Ahmadou Mokhtar loolu na ji jëf ju rafet jëf ju am solo jëf jo xamantene ma sha allah wa lepp rek mu tek ko ci kaw taali bi ak sakku ngeeramul sëñ Ahmed Mokhtar liggéey bobu na xam ngeen ni mi ngi ko tek ci loxol sëñ Ousmane Mbacke Gueye Fatma sëñ Ousmane nak kenn du ko laajte moy ki nga xamantene ni mel ci biti non la mel ci biir kenn kaddu la am mu sëriñ Touba Xam Rasoul top ay kilifaam warmaal leen ak mbal ngeewr sëriñ Touba Xam Rasoul gi liggéey bobu nak bok sëñ Ousmane sayto ba noppi nag dina ko andi jébal ko sëñ Ahmad Mokhtar ànd ko ak taalibe yi euh, ginnaaw bi nga xam ne est muy lu tak lool sëñ Ahmed Mokhtar ci la tew sëñ Ousmane yëkkati kaddu yi nga xamantene bayiko bàyyi ko Cheikh Mbacke Madina jëm ci sëñ Cheikh Moutar mu jëbal ko liggéey bi nga xam ne koy liggéeyal ci ndax ku ne xam ne te que Cheikh Moutar xolam sedd na lool ndax nag am ko kilifteef nangu kilifteef dafa neex lool te yoon yoon toppante la yoon kilifteef la kon ki nga xam nangul na la kilifteef gi nga xamante ne suñu borom teg na ko ci sa kaw ba pare nag jox la cër bi wax di Cheikh Mbacke man ne ku ne xam ne ne yitteem lenn rek la mooy kàddu si ndigalul Cheikh Moutar Mbacke lay déglu muy guddi muy bëccëg sàkku ngërëmam ak dabu ko rek moo waral lii lépp te bunt bii di Cheikh Mouhamadou Moustapha nga nekkal ko fi ñu ñaan yàlla mu yàggaat lool ci ànd ak wér sëriñ Cheikh Madina yónni liggéey bi wax ñu yéene jim ci am ak lim ci lim ci jublu mu jëm si ci yow jëm si Cheikh Moustapha mu wax ne dafa bu sañoon lépp moo koy defal boppam ndax yéeneem egg na fa ku Cheikh Moustapha jaboot it mu taxaw ci sa kanam teral la ne loolu moo doonoon yeneen yenn jooy it xam naa moo ko jóot ci xelam dem ci man mu sant ma lii ne bu sottee it naa ñëw ci yow jébbal la ko ni ñu ko baaxoo def amu ci nag lenn lum ciy séentu walla lum ci wut lu dul ngërëm am na ko si rek la ci soxla. am na ko si. alhamdulilah alhamdulilah. ko ci wàllu ñun ñëpp nag. alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah. mu wax ne yéene mi lii feeñal yéene la rek. waaye fu mu mën a nekk ci lu mu mën a nekkit. taalibib Serigne Touba rek lay doon. di. bokk ci say jëwriñ ñuy liggéey ànd di liggéey Cheikh Moustapha loolu dong ma ko ñor ci loolu dong la ne jàpp na it ne sama gémmiñ gi li muy ñàkk ñàkk solo bu ci génnee dugg sa nopp rek nga jàppal ko loolu xam ne loolu rek mooy li am loolu rek moo waral jataay bi ñu ngi ñaan yàlla nag nga yàgg fi lool man nag ameel naa ko ngërëm man sama bopp di la ko seereel ndax yaanu yéer ñun ñëpp di ko seereel bokk yépp waaye di ko seereel mbokki taalibe yépp ndax ak bokk dafa neex waaye li muy neex neex juboo juboo ko gën a neex jiwuma ko it lu nga xamante ne tax na fam ma teg ci boppam ma yeloo ko ci moom xëy na ak cofeel la ak yéene ju mu am ci man. Ah, parce que ngeen ñaanal nu rek waaye xam nañ ni eh, rëy na ci ñun ñu sàkku nag ñu ñaanal la ko nag bu baax bu baax nag loolu ñu koy sàkku ci yéen ci it amuñu ku leen ku leen sut fi mu ne àddina ndax kap amuñu kenn ku leen sut ndax fu ñu mën a jàpp dañ fay bokk jàppandoo waaye bu ñëpp bàyyi ñu ñëw jàppaat ci yow loolu ñemees na ko wax fu ne ci waxtu fu ne ñu ngi sant yàlla nag di sant nag di ñaan nga ñaanal mbokk taalib yi am na ci ñoo xam ba léegi melewul liggéey bii rek a tax na mënuluma leen dara waaye yaakaar nañ lépp ngir jëm yàlla ak sëriñ Touba nañu yàlla defar ak defaral ñëpp jërëjëf ak ko ak ñëpp ginnaaw bi leen ñu xamal seen Cheikh ne ko xam nañ bu baax taxawaay bi man fi nekk bi léegi lii mën koy def am na jot day yokk waaye leen wul gannaaw ndax xam nañ ne yàlla ak yonent bi ak say Tuuba ak Cheikh Moustapha moo tax nga def. loolu ginnaaw ñoo ko bëgg a def. am nañu pay. te xam wóor nañu ne seen tuyaaba yi ëpp jëf ji. jëf ji rek tuyaaba yi la koy. tubaarkalla. kon kay ñaata yaakaar ne naam. kon nag donc yàlla rek mu gën ko man yàgg ko def. ci la ji seen ngërëm sëñ Tuuba. lépp luñ ci fasit muy bokk yeeg dëgëral bokk gi dëgëral àndu kër gi ak àndu kër bi lépp ci yéen rek parce que ci yàlla ko yàlla defal ay gërëm nag sëñ Issa ñu ngi ko wóoloo gërëm ko laa ko wóoloo gërëm ak waaw ñu